Salut les amis de eSport TV et de Babo Show. Merci encore Gaïd de la confiance renouvelée. Merci de vous des likes, merci de vous des abonnés, merci également des bails et des commentaires. Un plaisir renouvelé chaque fois, de partager des informations. Moi Mbok Sénégalais, fait pour le maintenir quatre régions du Sénégal, le Khouloukhadi, Gorgokhadi, Ninglen, Dija Djefel. Nous sommes également qui la loi hôpital et sécurité de février. Nous sommes bonnes fois que c'est un bon gamme. Nous sommes qui sont ramenés aussi erreur judiciaire. Guinée mine de feu, nous sommes bonnes fois Guinée d'un feu, dès lors les Sénégalais. Nous devons nous sommes bonnes fois que l'on a aussi Gaïd et Yéhénou. On avance avance ensemble dans la magie de Babo Show et des Sport TV. L'actualité en continu, Gaïa, actualité bien facile waxtané li nga xamné nak moy jëm ci ki di Mauricio Pochettino mi nga xamné gaay dafa mer ba futu wax ci nga xamné nak moy problème problème bi amone hein ah. donc aussi penalty bi il na ci ay leral la la ci wax lepp ñu fassé nak wassaré andi ci ak yeen pendant ce temps nak gaay ñi di wa Manchester City ni ngi gën di ci gën nga xamné Premier League bi ñi di Arsenal ak Liverpool di ko sori comme image bi ni mu koy firndelee nag fi ni Manchester City moom mooy diriger ndax ñaar ñi dañoo perte seen match moom mu gagné match am ne nii benn sans faute daal buñ fait ko defee euh, jël li nga xam moy championnat bi gis ngeen ko fini donc ah, donc premier match bi contre Brighton ñom dañu gagné hein donc euh, lii plutôt il plutôt a moy match matchs match yi leen plutôt match yi mujj donc Manchester Brighton lay dajel Wolverhampton Arsenal entre autres pendant ce temps du côté de Manchester United qui nak di Anthony Martial fay jouer Anthony Martial mom y na du côté de Manchester United ndax gañu gañu fa tout tax dal Manchester fi ñom dal nénañ doyna doyna et il va quitter donc le club mancunien. Du côté donc de euh, l'Italie et de l'Allemagne Victor Boniface ak donc Victor aussi, ñoo nekk ci photo bi ngeen di njëkk a gis tay ñom ñaar ni dem nañ ba kenn ki nek daaw champion Italie kenn ki nek champion donc Allemagne Rendini donc bokk également ses meilleurs buteurs africains en activité ils sont phénoménales Achraf Hakimi nga le match ADB bi le match retour bi joué nañ actuellement ñu dal daal dañuy dem du côté du Barça pour jëli ndam li pour jëli qualification bi loolu lañ tax a jóg match bi dal gars yi supporters joué ko ci terrain bi la ñoom lay l'affaire di amé donc ñoom kenn nañ stade bi fees lijjanti wuñu loolu xale bi nag na ko waa équipe nationale du Sénégal petite catégorie bàyyi xel ah mooy Djibril Diallo nekk du côté de Rennes booy bi ko 11 matchs 8 buts la booy bi dugal donc il faut bien évidemment gagner le ñu bàyyi xel c'est un joueur boo il peut jouer pour le Sénégal, il peut jouer pour la France. Pendant ce temps, Pape Demba Diop de retour. Hein. Donc, Moum Demba, il a encore été décisif, passe décisive, la def, euh, def match énorme, alors que blessure le Djougué. Donc, on a hâte, disco, parce que, boy, bi tamit beaucoup de ci ñoo xam ne équipe nationale a nañ leen sóoraale. kii nag di Cole Palmer, gis ngeen ko, moom lañ jox man of the match, gannaaw bi mu fait nag li donc triplé, Il mu dugal tey tax mu meilleur buteur, moom ak Erling Bro à Londres. nag, hein, match bi tey, ah, il a fait un match héroïque, Chelsea a gagné 6, lañ doon Everton, mais teewul, coow am li indi coow bi nag mooy image bi ngeen di gis ah donc ah gis lii daal jur na coow gars yi ko et mais nag neexul dara ki nga xam ne nag mooy donc seeni entraîneur di Mauricio Pochettino bi mer ba foot jëmale ko ci ñoom Nicolas Jackson ak Choupo-Moting ak également ñoom Cole Palmer plutôt ndax neen na daal lii tey lay njëkk tey lay mujj mu muy am ndax leer na ne ñoom ñëpp wax na ne ne Cole Palmer mooy dóorkatu penalty yi Cole Palmer mooy dóor penalty Cole Palmer mooy dóor penalty na ci yam na jeex bëggatul gis lu ni mel nee na wax na ak joueur yi wax te dootu ko accepté lu ni mel daal di am donc mer na ba foot daal ki nga xam ne mooy donc Mauricio Pochettino nee na daal wax na koy joueur mi dès le départ la na ko wax donc tey nag la koy mujjee baal bàyyi mu sedd mais dootul amati na leer donc buñ ñu amoon cent mille penalty Cole Palmer daal mooy tireur attitré loolu daal la daal di wax ngeen gis fii nii ah, xam rek ñaari joueurs yi aussi di xëccoo ñoom dañoo bëgg dugal ay buts comme que kii dugal na triplé mais quand même il faut respecter le choix des entraîneurs comme on dit gars yi nii nag moo information yi ñu bëggoon jox di jégalu encore ci limu mu tay mais comme je dis rek ah toog muy dox mom dafa jeex gars yi ah, donc administration bi ñeppay liggéey à 100 même bu fekkoon dañuy liggéey teewul jamono ji dal fast li ñu fast track mais fi ni mom jub jubal leeral mooy gëna a dem woy di like way di abonné gars yi on avance ensemble dans la magie de Baba Show et des Sport bu baax ci le bonus ñu gars yi jaaneko